bonsoir asalaamaaleykum sama gars yi j'espère que yéen a ngi si jàmm man it maa ngi si jàmm da leen di jàmm seen seen Like Mobile votre chaîne de technologie tey dañu ñëwaat pour présenter leen benn super astuce bu am importance seen iPhone avant ñu commencé vidéo bi nag ñu ngi leen di demaat fekk ne bi mooy première fois bi ngay doog a dugg si suñu seen Like Mobile bul fàtte bës si bouton abonné bi daal aimé vidéo partagé ko activé ko loolu de notification loolu dina la yombal vidéo boo xam ne dugal nañ dugal nañ ko rek yow di nga bokk si ñu koy njëkk a gis tey astuce bi la muy nag ngay def ba télécharger ay son si sa iPhone parfois dañuy demander man dama yor sama iPhone mais dama bëgg di télécharger ay son te bëgg ma utiliser benn application yi nga xam ne da day day lay permettre nga ngay ngay télécharger ay son voilà tey nag dañ leen woon nag ngay def ba télécharger ay son si sa si sa iPhone sans application voilà euh, léegi nag bu fekkee ne yow euh, da nga bëgg a télécharger euh, benn benn son léegi da ngay dem YouTube nga recherche son bi nga xam ne moom nga bëgg a si sa iPhone voilà yaakaar bépp son boo bëgg rek euh, boo dem YouTube voilà yaakaar naa fa mën a ko fa mën a gis léegi da ngay dem sa YouTube euh, léegi nga dem si barre de recherche bi nga xool son bi nga xam ne bëgg nga bëgg a télécharger nga da nga bëgg bind turam léegi exemple lañ leen jox dañuy tapé voilà léegi nañ tapé Wally euh, dina voilà dañ bu fekkee ne am na beneen son boo bëgg def Wally Seck même yoon bi même fonctionnalité voix la même voix bi euh, moom moom ngay jël léegi euh, boo toppee Wally Seck léegi nga nga nga recherche ko léegi nga wàcc ba xool son bi nga xam ne moom nga bëgg a tel charge léegi ñu day wàcc daal di wër son nga xam ne moom lañ bëgg a tel charge voilà léegi ñu xool léegi son bi lañ bëgg a tel charge ñu xool son bi ñu bëgg a tel charge voilà léegi ñu xool son bi ñu bëgg a tël léegi naturel love moom lañ bëgg a tël charge voilà léegi da ngay bës vidéo bi da ngay cliquer voilà léegi parfois YouTube day indi ay publicité léegi mën nga xam ba bi dem nga ignorer voilà léegi nag ngay def léegi euh, léegi euh, da da ngay dem fi mu la bindal partage léegi boo demee partager léegi am na fi mu bindal copier le lien voilà léegi da ngay bés fi mu la bindal copier le lien léegi boo xasee copier le lien léegi YouTube defu doo fa dara léegi da ngay génn nag voilà léegi da génn nga dem si sa safari voilà léegi bu dee gisoo ko nga dem si bibliothèque d'application bi nga recherché ko boo commencé def safari dina la ko ndil léegi nga tapé safari voilà léegi dangay dem si base de recherche bi moom it léegi nga tapé li nga xam ne moom laa lay waaj muy M muy Y T MP3 Y T MP3 voilà voilà Y T MP3 voilà léegi nga recherche voilà. léegi papa nag da lay indil deux si kaw léegi da premier bu lay indil lien rek bi si option bi nekk si kaw moom ngay cliquer waaw parfois nag da la koy directel automatiquement léegi bu la indilee yow nag ngay def mooy bu fàttee nag da nga demoon YouTube nga copier benn lien léegi lien boobu ne moom nga copier woon moom nga ñëw nga coller ko fii voilà léegi moom maa ngi lay defal convert maanaam da da la indil pour nga coller fi bi nga xam ne moom nga copier woon euh, YouTube voilà léegi da ngay da ngay da ngay def clic droit léegi nga copier nga coller lien bi voilà boo collé rek automatiquement moom dalay détecté son bi nga xam ne copié woon nga ko voilà ñu def fermé parce que application yi am ay publicité yu si daw voilà léegi boo bésee boo boo boo dugalee lien bi rek da lay indil download voilà léegi nga cliquer film bi dal download boo cliquer nag euh, application yi nii boo si duggee parfois dañ la indil ay publicité comme que ñoom euh, voilà ñoom ñoom ñoo ko def moo mën si def da ngay defar retour voilà nga ñëwaat si sa euh, si sa si sa page bi nga xam ne fi nga mën a télécharger sa son voilà léegi nga nga nga def ba si télécharger voilà léegi boobu si léegi da dem nag film bi dal download MP3 nga cliquer voilà léegi nga bës download mp voilà léegi son bi ma ngi commencé télécharger si suñu téléphone léegi dañuy bës euh, double A yi euh, euh, si suuf voilà léegi bu ñu ko bësee léegi ñu dem si téléchargement léegi bu ñu demee téléchargement léegi ñu xool voilà léegi son bi wàcc na si suñu téléphone léegi léegi nag bu ñu ko cliquer woon voilà da ngeen mën a di dégg son bi voilà léegi nag voilà léegi mu ngi nii bi leen téléchargé woon wàll sec voilà léegi voilà léegi bu ñu ko cliqué woon nii da ngeen dégg son bi delta léegi tamit boo génnee nga dem si sa voilà sa fichier bi léegi nga xool ko fa voilà léegi moom it da fa mën a trouver léegi ñun télécharge nan son bi nga xam ne moom la bëgg télécharge te utiliser wul benn application voilà parfois nag am na application yoo xam ne pour nga utiliser ko sa iPhone day day compliqué pour télécharge ay son mais yoon bi boo si jaaree di nga mën a télécharge bépp son boo bëgg télécharge te doo am benn problème voilà jaa ngi